بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه نيجي ngi yeesalaat suñuy nuyoo ak suñuy ziar jëmale ko yéen ñi nga xam ne yéene waa daara ji ñi teew di déglu ci xol bu sedd ak ñi nga xam ne buñ sañoon ñibbi ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñi nekk ci téléphone yi ak ñiy déglu ñëpp ñu ngi leen di nuyu tabarkalla tabarkalla toog di déglu ci xol bu sedd ngir bëgg xam-xam ñu ngi leen di nuyu waaye ñi nga xam ne dañ leen a force rek ñu toog waaye buñ sa ñoom ñibbi ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi nuyu nuyoo boo xam ne yàlla na ko saxal dàq li fekk nuyoo ngi des ci kaw suuf na ko yàlla saxal dàkk li fekk li ñuy génne nit ñi di ko seetaan nit ñi ñu ngi koy man di seetaan ci jamono bu ne. doonte dafa nekk ginnaaw suñu dund jamono bu ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla na sax dàkk te la muy tekk yàlla na nekk ci yàlla na ko yàlla def mu nekk ci ñëpp démb nag ñu ngi doon waxtaane ci njariñal waxtu njariñal temps njariñal dund li nga xam ne mooy maye lépp waaye li nga xam ne moom la yàlla jox nit te ku ko sàgganee ëllëg bu baykat yi di góob demal dabal ma kook nag mu duggaat ci daal mu baykat yi di góob moom boo moytuwul du am dara yàlla nañu si yàlla musal nag waxoon nañ démb ne yàlla dafa jox nit ñi jumtuwaayu bay ne leen dem leen bay am ñoo xam ne dañoo dem ci tool ba lal seen basang gis ndox mu sedd teg seen ngeganaay te di nelaw ñooñu moom mënuñoo fexe ba am dara incha allah kon tey nag dañuy ubbee waxi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di suñu sëriñ di ki nga xam ne moom lañ nekk di liggéey ci ab toolam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul kenn du ko laajteetu ci daara yi donte dëkk bi dëkk la boo xam ne barabu lislaam yi ñëpp ci dajee te noonu rek lañ ko bëggee waaye def nañ ci ku tedd ci di xaadim rasul ay waxtaan yu bari Cheikh Abdou def na ci waxtaan ci wolof Bachirou Fall def na ci waxtaan ci anglais Moussa Wane nee na def na ci waxtaan waaye déglu ma ko الشنوا الشنوا عملت اللام يقولون بذلك moom nag si benn téere bi muy wax Masaalikul Jinaan téere boo xam ne ba mu koy bind ci wàllu ati doomu aadama ci wàllu zaahir gone la woon ma ko bindee ca Mbàkke Bawal ma ngi ko bindee ca daara ja am na genn garab goo xam ne sama garab la ko daan tuddee ak garabam maanaam fa la ko daan bindee téere bi nag téere la boo xam ne li ci nekk dafa bari lool bu dee diine mi ngi ci bu dee xel mi ngi ci bu dee àdduna mi ngi ci bu dee psychologique mi ngi ci bu dee tarbiyatu nafs mi ngi ci bu dee tarbiyatu ruux bu dee والو جهاد النفس ميغيتي ودي تربيه ميغيتي ودي علم النفس ميغيتي ليش نك بارينا لا دافتا واخ بن بونت بو ام صلاه والو نان لا دي اشتغل عليه وقتو مانام نان دي اوكيبي سا وقت ما دوكو بام كاي واخي ديكو رك نلا فخال با سا وقت نانكو ديف ني ني واي دا خم خمال صلاص ميغا خم دي نيوم amatuñu waxtu ñoom seen waxtu jeex na ñoom léegi ña nga waxtu yàlla nekk ca bàmmeel ñoom li ñu bëgg te duñ ko amati ba faaw te yaw nga am ko nag mu ne bala ngay dem foofu te yàgg yàlla da fay dem yow mi nga xam ne yaa fi nekk mën a am fexeel ba na nga profité ndax léppay jeex kenn kuñ si génnee ci yéen ñi photo boo xam ne mi ngi nekkoon 2005 soo ko xoolee da ngay Leg leg sa dobo ko bëgg a xool photo kuñ ci génneel ab photo boo 2010 la woon donc 10 years ago Do ko bëgg a gisati I have pictures I have some loolu liñ siy jàngatee mooy àdduna kon léegi jëmmi photo boobu rek dalay na. ne kon léegi nit nekk day soppi ndax man nii laa meloon ten years ago léegi nii laa mel te nii nga mel tey fii ak fukki at dangay mel neneen fi mu fukki at yi ñu dëgmal lu bari ci lay xew ci yéen dundin ñu bari ci lay changé da ngeen nekk te ay xale da ngeen di responsable lenn ci yéen ay borom kër piir lañuy doon lenn ci yéen ay mama la ñuy doon lenn ci yéen nag di xaare waaw di xaar dégg mooy dundu doomu aadama fii yëpp another twenty years di thirty years lenn ci yéen ay grand parents la ñuy doon next thirty years wala ñu baaw years fii yëpp two thousand sixty incha allah lu bari ci yéen ay grand parents lañu doon fii yëpp two thousand one hundred one hundred ten one twenty you're gonna be sleeping deeply never wake up again uh-huh. okay bu boobaa your beauty your beauty is gone bo nekké xalé ndaysan diw di lisal nga dem bu mujj yàgg nga am 50 60 70 sa yaram ras nga bëgg a diw bëgg rafet karité ngay jël diwoo ba nin ba pour xaw sa sidi di génn sa yaram ras aduna ngi soppé nga dem bu mujj yàgg do ko talati yow noy def bo wir do ngay bëgg noy def bo wir nga dem ba mujj yàgg nag nga jekki-jekki rek full sleeping nova wake up dee ah bala moo dikk yooyu yëpp nag Sëriñ Tuubaa dane loolu lépp bala moo dikk bala nga cay dem démb waxoon nañ ko dañ siy jaaraat jaar bu gaaw rek dane woon ñi nga xam ne ñoom dee nañ bay nelaw lañ gën a bëgg bu fekkoon ne am na kenn ku dem ci ñoom bale leen woo leen ne lan ngeen gën a bëgg lu ñuy wax wax nañ ko dama téeméer yoon lan la ñuy wax. delluwaat àdduna lu toll nan. ngir ñu def. loo xam ne suñ dellusee. mu jariñ ñu. ñu nekk ca bàmmeel. ku am maam ji faatu yëkkatil loxoom. maam di faatu ku ko am yëkkati loxo. juróomi maam bari ngay maam yooyu. ok suñ maam yooyu yee faatu ku demoon ca bàmmeel yee leen te ñun nag danañ faatu léegi mu nekk ka faatu ak ñun ñi fi des ku demoon ca bàmmeel yee leen ne leen li ngeen gën a bëgg dañ naan. dikk fi ngeen nekk toog fi ba mën a profité def lu baax te lool ku leen ko joxoon buñ dikkee ñoo ñuy gën a mën a liggéey gën ñoo nangoo liggéey ndax moo ñu gën a xam njariñal lu baax ndax ñoom léegi gis nañ ko ndax ñoom léegi ñan ca xaqul yaqin wala ñan ca aynul yaqin ngir ñu def lu baax ak lu mu tuuti tuuti donte dañuy dem rek jënd rek benn sandwich rek saraxe ko wala ñu génn rek dem rek jubali ci hôpital ba fekk ku amul ordonnance rek ñu jëndal ko ko wala ñu dem rek jënd benn kaamil alxuraan dong dem ci jàkka ja dugal ko fa wala ñu dem rek butéelu ndox fekk ko mar naan dong ñu jox ko ko wala ñu dem rek àll bu manqué garab ñu jëmbatu garab rek ngir mu sax luñ mën a def ñoom duñ si xeeb dara danañ dem fexe ba def dara dañ tala lekk duñ tala naan diggante boobu def lenn lu baax yàlla rayaat leen ngir ñu mën ko ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن قفلوا لكن سرين تبا من أقول لك كم كن يوم فوق لن نك تيو ياغ ياغ فنجم من مي دي وخ يل ني دي دبلو أك ني سيطان سلن جم ياغم ياغم يال نيخ ولف موم يال نيخ لي وخ waaye yeex géeg yeex géeg gaaw géeg yëpp daanaka benn la ndax bu accès rek lañ waxoon démb ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha loo gudd gudd fan boo faatee day mel na dangaa nekkoon ci àdduna bi lu toll ne diggante ba cëg la guddi dong gént lay ñëw kon nag wish to live loo bëgg ñaanal yàlla dund loo bëgg fukki dundal sax ñaanal yàlla sax jund dund thousand years mais après thousand years yi day jeex ndax bu fekkoon ne ci jamono yonent bi sallallahu alayhi exemple am na ñu ko doon wish pour dund ko kon ñoom léegi ni jeexal nañ te dee mooy mbir moo xam ne dafa ku jee ku dee rek da ngay dab da ngay dab ñu deewoon woon ya da nga leen di dab ndax yéenay bokk la ngeen di yëg bu dee lu baax ñu baax ñaa koy bokk bu dee lu bon ñu bon ñaa koy bokk bokk di ko yëg kon mu ne yow mi nga xam ne yaa fi des am temps فاغتنما باقي عمر قد مضى بغير طاعة وللخير مضى mu ne yow mi fi des di des ci sa dund te xamoo kañ lay jeex na nga ko màngee ci def lu baax te fexe ba rëcc rëcc yi nga moytu ko li nga xam ne da nga koo defoon ci lu dul topp yàlla nga fexe ba tuub ko defee ko lu baax loolu mooy tolloog yonent bi sallallahu alayhi wasallam حديث بيغا خامني تي لاي واخ تي حديث ابو هريره بي واخ اتق الله حيثما كنت لم تتك واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن حديث بو ام صلى الله بو خامني أه، مانام دانك رك موكو العصر دانيو نورو مبير لول وموكو العصر بي ندون واخ ديم دانيو نورو مبير ndax yonte bi sallallahu alayhi wasallam ittaq illah haythu ma kunta nga ragal yalla fo man di nek fo man di nek moy ci lo man di nek كوفا من نكل نوفا من نكي فو من نكرا على يالا اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة سو جومي بدف لبن فخيل غور غور بدف لباخ ndax lu bon lolé nga xamné ñoom té nga ko défé won lu bax la dal di koy far ba mom donc mo fay dess ay nit bu defee benn bu bon malaaka yi dañ koy tomb tomb bu woyof boo xam ne su tuubee dañ koy ëf mu dem walla ñu érees ko mu dem wala ñu effacé ko benn bu defee benn bu bon benn tomb benn bàkkaar lañ koy def su defee benn bu baax ñu tomb ko ak dig boo xam ne da effacé wu fukki tomb ne ko lépp yaa ko moom léegi fukki tomb yooyu nga xam ne mooy benn bu baax ba la koy mën a yàq yës a gën a gaaw mooy njistal njistal moom day yàq fukk yu baax yëpp wala mil yu baax sax dafa yàq njistal bu defee njistal wala mu wala wala maanaam li muy li muy def mu koy tudd maanaam di ko tudd daal di ko fàttali nit ñi di ko wax bëgg ñu wax ko bëgg ñu naw ko ca lu baax lam defoon lu mu bari bari day dem day màbb moom naw jëf naw jëf moo tax sëñ Tuubaa ne bari waana waa ji jëf jëf ju rëy ne montagne Uhud gen di ko ko toog fenn maanaam ci mbooloo gen di ko ko tudd ko wala xalaat ko rek jëf jëpp yàpp ci jawharun nafis jëf jëpp yàpp léegi benn bu baax boobu nga def yàlla tombal la ko fukki tomb soo defee benn bu bon defaat benn bu bon wala iyaas benn bu bon benn bu bon ba mat fukk ak benn bu boobaa fukk ak benn eleven moo ëpp ten kon eleven yi day yàq ten ya waaye nag soo tuubee ten ya daf fay des ak loo ca yokk mu yokk ca te benn dafa nekk waaye daal cib tënk te wax naa ko waxati ko ma waxati ko tey mooy kenn ku nekk yàlla daf laa jox ñaari ndab nga ne bii lu baax dong laa bëgg nga defal ma ko ci bii nag mooy tuccee dugal lu bon ndab li nga xam ne nee na la bu ci dugal lu bon boo fexee ba defoo ci dara lu bon loo def fee mu doy ndax kon lu baax dong moo fay des kat kon faxtani man baaqiya umrin qad mada bi gayri taatin وللخير مضى لغا ويس كي اك دوندو تي ديفو تي لو باخ فخيل با داب داباتو حديث من هناك اتق الله حيث ما كنت رجل لي الله فمن دي نيك واتبع السيئات الحسنه تمها وانا وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيث ما كنت موي تولوك الا الذين امنوا واتبع السيئات الحسنه موي تولوك الا الذين امنوا موي تولوك الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mën naa tolloog wa xaalixin naasa bi xuluqin xasan mooy na ànd ak nit ñi ci jikko ju rafet comme na ma ko waxee woon démb àndandoo léegi li tax mu jafe mooy ñun dañuy àndandoo te kenn séntuwul ku la wax dëgg maanaam damaa war a pare pour wax na dëgg waaye it damaa war a pare pour dégg yow mi ànd ak man dangaa war pare pour wax ma dëgg waaye dangaa war a pare pour dégg-dëgg noonu la ay nit ñi àndee ben kenn ku nekk bu yore ñaari wàll yooyu rek soo ma waxee dëgg tey ah duma la fas yéene duma duma la yéene nga def safaan ba ma ba ma fayu déedéet waaye tamit dama siy am fier te gën laa fonk waaye tamit fas yéene laa jàppale saa bu ma la waree wax dëgg ma wax la ko rek te yàlla tax loolu saxaaba yi noonu lañ meloon moo tax Sëriñ Tuubaa mi ngi leen di tagg ci nax ju qadaa al xaaj ñooñee nga xam ne dañoo fase woon àdduna jublu àllaaxira nek ñoo xamne dañoo joyal di ànd ci la nga xamne rek joyal al-akhira ànd ci la nga xamne rek moy la neex borom bi subhanahu wa taala te nekkon ñoo xamne dañ daan waxante dëgg ci seen biir non la leen taggee ci nax jo xabaar xam mu ne li nga xamne mom nga juum def ko ci lu bon nang ko daf dabatal faje ko lu bax qabdu fawatihi wala taxful abadan kon balaa muy balaa balaa poche mi di la rëcc bala ngay ñak occasion opportunité def yu bax bala muy wessu maa famé yow bala muy weesu dégg nga na nga fexe ba na ko moytu bu baax a baax na nga moytu bu baax a baax andil muraawaati li baax li jasad te mboolem li nga xamné mo nek ci yaram bi da ngay fexé ba sàmm mom moom boobu ci benn rëcc recc am. am na benn xadis yonent sallallahu alayhi wa sallam nee ah. doomu adama day sàggan ci boppam te kenn sàgganeewu eh, oh. doomu aadama day sàggan ci boppam te kenn sàgganewu ko sàggan ci sa bopp mooy li ngay def yow dañuy dañuy tëñëx tëñëxi rek ay yaxsabul insaanu an yutraka sudan ndax doomu aadama dafa jàpp ne dañ koo bind te dañ ko réglé ku nekk dañ lay réglé afa xasibtum annama xalaqnaakum abatan ndax da ngeen a jàpp ne dañ leen a bind noonu ngeen di wéy après rek nga xam ne day jeex ku dee rek mu jeex yem fa amul xisaab amul réglé amul àtte amul dekkil amul dara déedéet mbir mi demeewul noonu doomu aadama du plastique doomu aadama du du ay euh, matériel du ay mbalit yoo xam ne su noppee rek mu jeex waaye doomu aadama dafa nekk loo xam ne valeur la dafa nekk loo xam ne jukka la dafa nekk loo xam ne defaru yàlla la dafa nekk loo xam ne ku yàlla bind la sant ko mission boo xam ne bu metti lay doon kabad waaye nag waaye tamit day nekk koo xam ne day liggéey di jaamu yàlla te lépp ëllëg yàlla daf koy rek ëllëg kon doomu aadama bi nga xam ne doomu aadama bi yàlla bind kon doomu aadama bi nay sàmm wante mboolem aw yaramam nay sàmm wante mboolem aw yaramam bul sàgganee sa bopp lépp na koy bàyyi xel waaw boo demee ci munawiru sudur am na ci benn bunt boo xam ne sëriñ bi ma ngi ci tuddee faslun fil jawaarixi faslun fil jawaarixi boo fa demee yàlla nañu ko yàlla fayal Euh, cëri doomu aadama yi organes yi benn for benn la tudd defe naa mas nañ ci waxtaan benn par benn loxo ni nga koy sàmmee ni ngay sàmmee sa làmmiñ ni ngay sàmmee sa gët ni ngay sàmmee pëy ni ngay sàmmee sa tànk yépp rek lu nekk da koy sàmm loolu la loolu maanaam ndax ndax yooyu day yoo xam ne benn boo ci sàggane rek mën na laa dugal safara war ayaazu billah kon mu ne doomu aadama bi na fexe bay sàmm wante mboolem li nga xam ne moo di aw yaramam wa xay daabit al xawaasi fi kulli waqtin xaafid al anfaas jamono bu nekk Sëriñ Tuubaa nee na na nga nekk koo xam ne say yëg-yëg say yëg-yëg muy say xawaas da nga koy da nga koy moom sa bakkan maanaam bul bàyyi say di la jiital émotion lu lu doy waar la loo xam ne jànkat ñu bari dañ ko dañ ko bàyyi xel bu ngeen gisee ñaare samay wax bari may dugal mel na luy waara waaraale jàngkat yi dégg nga mel na luy waaraale léeg-léeg ustaas bi wala léeg-léeg sëñ daara bi wala imam bi déedéet damaa maam da di damaa yéene ñëpp yiw rek te bëgg yiw woowu ma yéene nit ñi ñi nga xam ne dañuy jóg pour defare ñoom ñu ñu jiitu si ndax dafa metti lool ngay defare ba noppi njëkk a yàqu ca la ngay defar te ñooñu ëllëg yowmal xiyaam yàlla da leen di mbugal te mbugal moom dafa metti maanaam gàcce googu rek wala yaasi billah maanaam di defar aw nit di leen waar guddeeg bëccëg subaa ngoon ba noppi ña nga doon defar ëllëg dugg aajana romb la ci safara wala nga bokk ak ñoom safara maanaam gàcce googu rek moo gën a metti am mbugal moo tax jamono bu ne damay dangay ngay dégg ma koy wax waaye dara maam li ma si jubli rek da di maanaam li ma yéene sama bopp laa yéene ñëpp wala bu fekkoon ne it maanaam ñëpp mucc nañ ñëpp kenn mënta ñàkk mucc buñ muccee te muccee ci sama kàddu it baax na ëllëg nu nu nee nu neex yàlla mu def ma ab jaamam naa maanaam daabit al xawaas euh, lu am solo la nit ki di contrôler ay émotion da ngay gis ñoo xam ne ñu saan dañu nekk ay jàngkat nekk ñu baax waaye dañuy gaaw a mer dañuy am problème ana suñ moom booba mhm. maanaam dañuy jàng am xam-xam waaye dañuy dañuy gaaw a mer dañuy gaaw a gis seen bopp dañuy rëy dañuy ñàkk a am xusnul muamala ni ñuy jëflanteeg nit ñi jamono bu nekk dañuy gis ne ñoo gën ñeneen yi jamono bu ne dañuy gis seenu askan jamono bu ne dañuy gis seen xam-xam jamono bu ne dañuy gis fi la fi la nit ñi teg te yooyu yëpp day yoo xam ne soo ko amee yow yaay wàcceel sa bopp maanaam bul bul bul bul nit ki warta yor xam-xam ba yëg ko ci boppam ba tax mu jàpp ne xam-xam boobu dafa tax mu jàpp ne moom daal ab tànk la nit ñi aw dàll lañ da leen di teg da leen di jëfandikoo sol leen di maanaam déedéet loolu kenn du ko def jamono bu nekk ak lu ñu la man di jiiñ ci xam-xam del suufeel sa bopp di di ñaan sama borom subhaanahu wa taala li nga xam ne moom la ñuy séentu ci comme ni ko yonent bi daa ñaanee li ñu séntu ci yow yàlla na ko yàlla dëggal waaye yàlla na la yàlla musal ci baakaar yi nga xam ne xamuñu ko xamuñu ko ci yow su ko defee nit ki war na fa nga xam ne fa lay waxee ci xam-xam mu mu di sa faj boppam donte mën naa jël temps bu yàgg waaye kuy def weer bu de weer bu ne nga bàyyi benn jikko bu yàggee rek macha allah nga complété ndax jikko yi sonal nit daanaka bëriwul waaye dañoo mën a loraate dañoo bari ay ngaañte waaw boo ne tey moom danaa fexe ba xeexu rëy misaal nga dugg ci daara ji dugg si douche bi mu takk nga summi sa mbubb tëju daal di lokk ci biir raxas ba mu set génn dégg nga nekkaat am Abdou San may dox dem maa ngi fàttaliku waxuma ko ngir damul ko ngir bàkk waaye day sama bind ma koy def sama sama sëriñ man naa mi ngi may seetaan dikk na sama kër yaay fekk may def li may wax sama kër waajur wu jigéen su ma masaan dugg fekk néeg bi taq damay dem duy ndox daal di jël bale daal di koy bale ba mu set wecc soo ko balee ba mu set wecc daal di jël fubeere bi maap ko summi sama xaftaan wekk su noppee na ko soxna si baal ma nga nga toog ne mu toog ma lalub lalam ba mu jekk dem yéeréem ba mu jekk am naay rakk jigéen waaye dama leen di séntu ndax ñu bëgg na mar su ma noppee daal di jël bale gi bale wera daayo ba bale waa leen buntu ne xale yi benn bis nag ma koy def soxna si mel na daa diis ci moom xëy na boobu maa ngi door ñëw mu diis ci moom ma ne ko xaaral daa am lu ma lay woon bàyyi ma ma def ko ma noppi naa la wax ma def ko ba noppi ne ko ne ko yaay yaay rek laa xam nga damaa xaw a kii nag mu ne ma mu ne ma mu ne ma waaw ma ne ko avant may bale ndax maa nekkoon Abdou Samad mu ne ma mu ne ma waaw ma ne ko ba tey maa nekk Abdou Samad mu ne ma waaw ma ne ko ah loolu la rek du dara du ma yàqal dara fi mu toll kilifa gu fi mën di ñëw fekk ma sama mbubb doo xam la kii dégg nga sama sëriñ bi nga xam ne moom laa jébbi ñëw na fekk may may bale sama tànk yi tax mën nañu ko mu ne ma continuer li nga doon def waaw continuer li nga doon def maanaam damay wax ci nit rek dafa am ay mbir yoo xam ne di ko def yàqul dara du la teree nekk nit du tax sa xam-xam rëcci lu tax ñu dàq la jumaa ja li li nit ki war a jomba def rek mooy lu neexul yàlla lu neexul yàlla daal moom la nit ki war a jomba def waaye yi nga xam ne euh, maam day tax day yokk sa dara ja loolu mën nay def kon yàlla nañu yàlla dimbale ñun ñi nga xam ne dañoo séntu ci ñun ne dañuy defare yàlla nañu yàlla defaral boppam ni yonent bi sallallahu alayhi man doon waxee ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla ñu yàlla yaral boppam te bu metti waaw yàlla nañu yàlla yaral boppam te bu metti société boo man di dem communité boo man di dem njiit bu ñu baaxee rek communité boobu ñooy gën seeni xale ñooy gën nit ñi dañuy soppante dañuy bëggante njiit bu ñu baaxee mucc ci ay jàngoro yu bari ña topp seen ginnaaw ñëpp dañuy bëggante dañuy soppante waaye njiit yi bu fekkee ne dañoo manqué am ay matadi di xuloo di xeex ak a bu boobaa kuréel lay am ñi xeex ñi ànd ak diw ñi ànd ak diw moo tax léeg-léeg nga dugg ci jàkka ju mel ne jàkkay Dakar fekk fa ñaari sàppe imam bi taxaw na leen ne mooy jiite kuréel bi imam bi taxaw mooy jiite kuréel ba de àdduna tukki na mhm. yàlla nañ si yàlla musal kon mu ne xaaflool an face mooy nga nekk koo xam ne même même say nooyi li ngay nooyi sax da nga koy da koy contrôler daptu daptu li nga xam ne mooy contrôler say émotion lu lu mat bàyyi xel la maanaam ndeysaan lu baax li nga bëgg di ko def da ngeen di gis bu ñu jàngee ba wàcc rek fi mu toll nii émotion la bu ñu jàngee ñëpp da ngeen di bëgg a dem galaay ngay dikk oustaz damaa bëgg a dem kee ngay dikk oustaz damaa bëgg dem waaye gis nga lu baax dem amee solo bi ñu toogee ba tàmbalee waxtaan rek kenn du bëgg a demee su ma su ma bëggoon a kii sax ñu ñu la maanaam mooy nit ki da ngay da ngay régler sa bopp xam ne lii lu la amal njariñ la te toog jariñu la te la ngay dem di ko def yi gënul li nga fi bàyyi waaw léeg lañ ca bëgg rek mooy ay point nangam nangam tabarkàlla tabarkàlla waaye point yu bari yi ngeen di wut point game la rek point game maanaam booy jeunes yi ci jeu bi ñu lay tegal ay coins noonu muy marqué point nga xam ne après da ngay jàpp ne am nga xaalis bu bari fekk lay jékki-jékki rek ne tey ne ne ne mu jeex taal. xam nga li may <laughs> kon mu ne li am na kulla nafasin min rajulin jawharatun nafisatun lam tanjali dégg leen Sëriñ Tuubaa nee na dara jërte xeeb nee na bépp nooyi bref bi ngay def benn bref bi ngay teg nga xam ne du teg sax two seconds mu ne jawhara la lan mooy jawhara mooy mooy diamond mu ne mu ne gold la benn nafas bi ngay génn rek mu ne gold la gold gis nga macha allah ak a neex nag xam ne ak a neex nga nga nga dem ba yegg foo xam ne bala nga koo aajowoo dañ lay defal gaz yàlla nañ si yàlla musal boo génnoon lay gis ay mag ñoo xam ne faaw gaz la ñuy noyyoo ba gaz bi jeexee rek wal iyaazu billah ak am solo bloqué ko cinq minutes taraay ok dégg nga maanaam nee na benn noyyi bu nekk rek benn noyyi ki yaa koy jëm benn noyyi benn nooyi bu nekk nee na jawhara la gold la jawhara la boo xam ne gold la bu cher benn nooyi benn nooyi bi rek mën nga ci def lu baax fi mu toll nii bi ngeen fi toogee ba léegi jàpp leen ne li ngeen fi nooyi lépp yàlla ñu ngi leen di bindal ay yàlla mi ngi leen di bindal ay tiyaar waaw képp ku toog te sellal sab xol di déglu te yàlla tax yàlla yëgal ne yónni la ay malaaka yoo xam ne yow la ñuy waxtaane ba ci yàlla waaw ah, maanaam yalla nee na e, yonent bi sallallahu alayhi wa bépp mbooloo boo xam ne dañoo dajaloo te yàlla tax di jàngale téere bi yàlla bi di waaraate di wax lu baax te yàlla dong tax yàlla nee na day yónni ay malaakaam ya gën ci ay malaakaam ñi dikk tiim leen di leen ñaanal di leen protéger wa xashiyathum rahma wa xafathum wa dakrahumullah fi man indahum la gën a neex nee na yàlla day jël ña toog si jotaay ba yépp boole leen maanaam tudd leen ci maanaam boole leen ci ay ay gaayam yàlla ñu ko yàlla defal am na beneen xadis boo xam ne maanaam malaaka yi dañuy ñëw di wax li ñuy waxtaan waxtaane di ko yóbbu di ko jox yeneen malaaka di ko yóbbu di ko jox yeneen malaaka ba yegg ci borom bi subhaanahu wa taala yàlla ne leen ñooñu na ngeen leen bégal ne samay jaam lañ yoo xam ne sama safara duñ ko gis yàlla nañ si yàlla boole waaye nag ànd ak loolu bu ngeen di déglu waaraate da ngeen di muur seen i cër دينغ كون لي ان كل نفس من رجل جوهره نفيسه لم تنجم دينغ مني اورس لا فور مو خامني مام دام كو غيسوت مو غنا فور صاح اورس ndax man nga ci def lu baax mané yumkinu ben ben ben noyu bobu non yumkinu منا منا فخ موم واجي منا فخ با ان يشتري الكنز بها من لا سا جند بن تريزور خم نين تريزور دا فرانس انغلي ما مكو خي لا منا من لا سا جند بن تريزور بو خم ني دنگا يو مام لا كاي نيك تي لو باخ دو جيخ مو تريزور بوب نك داي نيك تريزور ان جنة بو خم ني تريزور اجنا لا من نتي ام لو باخ benn kon mu ne dara jërta xeeb mu ne ixlaau abdin nafasan min taa yujibu xasratan lahu fi saa waaw kon bu fekkee ne nit ki dafa dafa bi ci topp amma ida axlaytaha fi lmaasiya fa daaka xusraan mubinun fadriya nit ki mu sa bo xamé ne dafa génne benn noo benn noyyu def ko ci yoonu yàlla maanaam def ko ci lu baax koku dana nek lo xamné day nek njariñam ëllëg yowmal xiyam waye bu fekké ne dafa jël benn noyyu noyyu passe ben temps bo xamné ci moy yàlla lako def ëlëk perte nga perte perte lay doon si moom ëllëg yowmal xiyam temps bo passé ci lu neex yàlla rek njariñ la ci yow temps bo passé lu mu tut ci naqar yàlla dang koy dang koy rëccu ëllëg yowmal xiyam dem wax nañ ci lu bari كون من هو اعمل الاوقات بالنوافل بعض الفرائض لا تخافوا لي من كون وقت يب نانكوي نانكوي ا مانام دي اسبند تي لو وقت يب يامنا بو نيك نانكوي ديف تي لو باخ ناغي فخه با جامنا بو نيك نانكوي ديف تي لو باخ لغي نك لان موي بينيفيس ديف لو باخ اندك نيان بود فان داي امنا كو فانام غات لول ديفول لو باخ ديفول سنيخ برام سبحانه وتعالى امنا كو فادم غات لول مو ماجور دي ديف لبون فادم غات وايا لبون دون لو دون ديف ديم سفارا يال نانيس يال مسل موي كي غنا نياك شانج امنا كو خا نني فنم دف فنم دفا غات وايا مسا ديف لودول لو باخ تي ماجور نا ادجنا لا جيم كين بوغو كو نك وايا امنا كو خا نني فنم دفا غودو مست ديف لو باخ perte nga deug deug deug ak ñak fay am na koo xam fanam dafa gudd mës te def lu bon kooku moy ki gën ci nit ñi ki gën le ci nit ñi amna ko xamne nak tante chance lay def mom wa leg leg mu def ni leg leg mu def ni kooku mom toujours mi ngi ci risque waaw bu ngeen demé ci hadith bu gudd boobu naan yujmau inna ahadakum yujmau خلقه, خلقه في بطن أمي أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يكون مثل ذلك بام بحديث بجيخ بودي مين بجي فعبي ما يوحنا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه ذراع إلا ذراع آها فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها سفان بدالي أم امنا ньо خامني yàlla da leen di baaxee ñuy def di def di def di def ba mujj gi seen mujjantalu dund ñoom mën naa am sax ci waa safara la ñu bokkoon waaw maanaam ñoo xam ne dañ doon def jëfinu waa safara di def jëfinu dañ doon def jëfinu waa àjjana naa njëkke waa àjjana di jëf jëfinu waa àjjana di def lu baax dem bay bëgg a faatu ne nañ jéem nañ try nañ change mind def lu bon far faatu dem safara am na koo xam ne nag lu bon dong la doon def lu bon mës def lu baax dem ba feew dundam xamu ko mu ne ah man mii nag maa ngi bëgg a ëppal man xaw ma dara lu baax te xaw ma dara lu baax te teemaa dem julli far dem ci jàkka ja julli ñaar ràkk daal di fay faata loolu moom yàlla ku mu bëgg ci moom aw yiw da koy defal waaw ah, day am dana ñettali ne dafa amoon benn sëriñ boo xam ne da doon jàngal ab dongaam sonn ca moom lool sëriñ ba di jaamu yàlla lool waaye donga ba tribul lool saay-saay loot guddi gu jot day naan sàngara di sàcc di def lu bon guddi gu jot lu bon lay def sëñ bi nag kooku yéem ko mu metti ko lool metti ko lool mu jigi mu mel na ku giifab bi melee na lu giifab daa di mere donga bi daa di ne ah jekki-jekki benn bis mel na ku découragé daal ne man xaaral sax tey ma mos li donga bi di def daal di naan sàngara dongo bi it daan xaaral ma mos li sëriñ bi di def tey ma bañ a naani sàngara dem julli nag ba xam nan la mel ñoom ñaar ñëpp faatu si guddi ah man naa nekk de day nekk sax yàlla mu si yàlla mu na ah, ci maanaam قال يا رسول الله ayu naasi xayrun waaw ayu naasi xayrun dañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kan moo gën le ci nit ñi kan moo gën ci nit ñi gën le gi gën gën li lay teg mu ne man taala umru wa xasuna amalu mooy koo xam ne fan wa daa gudd ba noppi jëfam rafet fan wa daa gudd jëfam rafet qaala fa ayu naasi chayrun charrun qaala man taala umru wa saa amalu mooy koo xam ne fan wa daa gàtt ba noppi jëf jobon is an is not is not allah ki fan wa daa gàtt waaye jëf ja daa mën ni ko waxambaane woo xam ne daa tàmbalee am fukki at juróom-ñett rek di agressé avant muy am fanweer daa di dee di def la bon koo xam nga fan ma gàtt na te lu bon donc la doon fan ñu rey ko sa yàlla ñu si yàlla bokk na ci li nga xam ne kenn ku nekk war na di ko bàyyi xel mooy jokku mbokk lu ci man di man jokku mbokk bokk na ci buntu tuyaaba yi maanaam jokku mbokk boo demee ba nekk mu kallaf xam mbokk gi di ko dox di ko rafetal fexe ba bu bu mu yàqoo ci yow benn yoon loo ca man nga def ko ca nam gën a baree nam gën a mettee ne jamono bi nag nekkatul lu yomb waaye lépp tuyaaba la rek yaay def loo man jokk mbokk gi baax na loo man loolu bokk na ci tuyaaba yi nga xam ne tuyaaba yi gën a gën a gën a rëy lay doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax jàngal nañu ne jokk mbokk bokk na ci liy yaatal wërsëg ah, jokk mbokk day yaatal wërsëg maanaam day tax sa am-am gën a bari day tax sa income yokk mu ne képp koo xam ne bëgg na wërsëgam yokk dégg nga bëgg na wërsëgam yokk te yàlla barkeel alalam nay yokk mbokk nay jokk ak mbokkam ku bëgg wërsëgam yokk yàlla barkeel alalam nay jokk ak mbokkam saa boo gisee ku ñeme financement di dimbale ñu bari dalay lay yéem moom nan lay dundee maanaam te maanaam li muy am sax moom ci boppam day jàpp ne maanaam moo ëpp ab pay cagam waaye yàlla moo ciy def barke lu mu mën rek lu mu mën rek day yokk yàlla daf koy dimbale ci yu bare bare bare bare bare bare ah, beneen bi mooy képp koo xam ne bëgg naa mucc ci li nga xam ne yàlla da ko naroon a dogal ci kawam te du lu baax war na di farlu ci ñaan ñaan comme ni ma ko waxee woon yak yak julli ñaar ak ñaan manam borom bi subhanahu wa taala xam nga qada wal qadar wax nañ ci bu fekke ne mbir mi nek na lo xamne yalla dogal na ci yow te tàbb segut man nga def lu bax rek yalla dadi dadi koy wëlbati li fek lolu am ba dal ci sa kaw li fek amul xam nga kenn du accident ba teud ci tali bi nan yalla yalla nag mu mussal ci accident tey <laughs> dégg nga danga naan yalla yàlla nag ma ci accident bala mo xew fekk mën naa am sax def nga lu baax ñaan ko fekk tey jii da waroon a yàlla dimbale la sa musal la si loolu tax ñu naan booy dugg ci oto na nga léemu booy nelaw na nga léemu nangam ak nangam ngir yàlla musal la yonte bi sallallahu alayhi wasallam nee na laa yaruddu l qadaa illa doa nee na li yàlla dogal kenn mun dara mënu ko randal li fekk taabu seegu dara mënu ko randal lu dul ñaan am na feneen foo xam ne it saraxe lay wax maanaam saraxe it mën na naa mën naa mën naa mën naa laa fanqal musiba boo xam ne naroon na laa dal ci kaw waaye nag wala yasidu fil umri illa al birr nee na ku baax mën naa gudd fan maanaam baax baax nag mooy baax ci sa bopp baax ci nit ñi baax ci doomu aadama yi loolu mën naa waral ak gudd fan ci nit mën naa waral ak gudd fan alquran nee na wa amma maa yanfau nnaasa fa yamkuthu fi l ard wa amma maa yanfau nnaasa fa yamkuthu fi l ard wa amma maa yanfau nnaasa fa yamkuthu fi l ard nee na képp koo xam ne day day dimbale nit ñi di leen jariñ ah yàlla mën na koo def ci moom mu sax ci kaw suuf si maanaam yàlla am na ñoo xam da leen di dimbale ngir yërmaane ju ñu nekk ci nit ñi di leen bëgg a rey parce que daleen di gis ne léeg-léeg bu leen reyee ñu baree baree bari rey gi mu leen rey faat gi mu leen faat dañ cay loroo yërmaaneem ca ñooñee tax mu bàyyi ko fi tax mu bàyyi fa waaja ñi ngi wax ci euh, waa banu Israël benn waay boo xam ne euh, nee nañ waaw Seydina musa alayhi salaam daf doon ñaan yàlla wan ko ñu war a faatu wala nam demee Seydina Ousmane yàlla wan ko benn waxambaane woo xam ne euh, maanaam dafa waroon a faatu waaye waxambaane bi nag dafa dikkoon ci Seydina Moussa ne ko Moussa ñaanal ma ma am alal ñaanal ma ma am alal Moussa ne ko mën naa laa ñaanal nga am alal musaa dem ñaan yàlla ne ko man na mën naa ko may alal de waaye kon kon kon day gàtt fan ma day gàtt fan kon balaa déwén mu faat mën naa ko may alal waaye kon next year in day faat mu wax ko waxambaane wi ne ko yàlla day xamal na ma ne man na laa def nga am alal noo ko bëggee waaye dangay ngay gàtt fan kon da gaaw a faatu de da dee mu ne ko waa bëgg naa mu ne ko waa bëgg naa fekk Moussa yàlla sama borom subhanahu wa taala da koo xamal ne ko du du génn at mi bi mu ne ko bëgg naa ndox xamaa ne daal di am alal am alal ju bare bare bare bare bare waaye at ma jeex faatuwul ñu dem ay ati ati ati at waaju faatu ba am 15 years after waaju faatu Moussa ne waaw yàlla yow de loo wax dëgg la te man kii yaanu ma woon soo ko su ma ko ñaanalee soo ko mayee alal day faatu balaa at mi jeex te moom faatuwul mu ne ko kooku rus naa ko rey ndax ba mu amee alal ba léegi li muy def ci lu baax kook rus naa ko fee jëlee ba mu amee alal ba léegi li muy dimbale ci ay nit ñu amul dépasse mu leen di jox ay jeunes yoo xam ne sax dañoo bëgg a takk soxna mu jox leen alal ñu takk di dimbale ci ay nit rus naa ko fee jëlee looloo tax ma yokk ak dundam def lu baax nit ki bu mu ko waaj bu mu def taswif taswif dañ ne sayfun yaqtau almara an istiglali anfasihi fi taati rabbihi fahdar an takuna min qatalaah wa daxaayaah maanaam taswif mooy maybe I have to wait I have to think I have to take a time I have to do this I have to to to to boo waree dem defi lu baax rek def ko na nga nekk sa doomi jamono nekkal sa doomi jamono maanaam li nga mën a def xamoo ba xam occasion bi tey dong nga ko mën a am ولا منوكو ام كون نك ليغا ورا ديف ديمال ديف كو داغي نديك لا ديف فسبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات اخرى يالا نين لو باخ داغي نكوي نديك لان لين رك مو جرا كورسول تي ادنا بي دنگا لين رك مو جرا نديك لان تي ادنا موي لو باخ لو باخ داغي نكوي ولا nga man nga ko may nit nak fexé mu def ko yene occasion kon légui mu né na nga fexé nekk di xaar dara lu baax loo war a def gaaw a def ko ndax kat soo ko deful kat xaar boobu noonu mën naa nekk jaas yoo xam ne day dagg sax la nga waroon a def da lay xañ sa digganteeg topp sa borom bi subhanahu wa taala kon nag na nga moytoo nekk koo xam ne da ngay da ngay rey maanaam occasion boobu yàlla jox da ngay rey waxtu wi su ko defee nga mujj nekk victime nga mujj nekk victime mhm. kon daal bàyyi leen xel ne ñetti fan rek ñoo am démb ak ak suba doo nga am ah loo jëf ci démb loolu weesu na yàlla da la koy réglé démb loo sa def weesu na suba ak seebul tey dong kon nga am muy jamono bu nekk rek sa tey la ñu tëjee xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam masaxa yi saxaaba yëpp toog mu daal ni waaw tey kan moo xëy woor ana kan moo woor ci yéen Aboubacar ne ana ya rasulallah man mu ne ana kan moo xëy ci yéen saraxe Aboubacar ne ana ya rasulallah man yow yonent bi yàlla ana kan moo xëy ci yéen seeti ku feebar mu ne ko man mu ne ko ana kan moo xëy ci yéen gis am néew ñu koy suuli mu topp ko ñaanale ko mu ne ko man mu ne ko ñeenti yëf yi de képp ku mu dajee ci moom ci ab bis kenn mënu koo teree dem àjjana kan mooy dem àjjana ak a jafe Amérique mhm. ndax moom mënu leen a war a ci kenn leen hôpital di seeti kenn kon daal ah, loolu moo nekkoon leçon tey bi yàlla nañ yàlla may dégg ak topp ah, li ñuy jàng it na ngeen koy dégg di ko jàpp di ko te mu bañ nekk loo xam ne dañuy wax rek te kenn du dégg li ñuy wax amul benn njariñ wax baax na lool waaye la ci gën mooy ñu koy dégg te di ko jëfe te li ñuy wax it du ay lépp du ay lippeen du suñuy wax bopp waaye wax yàlla la ki koy waxit it moo yéene ci yam dong awma ci lu dul jottale suñ ko jëfee ñoo say bokk yam sama devoir la nag ma wax leen seen devoir la ngeen jëfe bu boobaa nag devoir yàlla mooy bindal leen tuyaaba incha allah sama waaw loolu doo ko ci waaye nag nit war nay moytu di déglu waaraate wu dekk dëgg te du ko jëfe topp sa bakkan te lii ñuy wax lépp da nga koy yéex a gis waaye da ko gis hmm. am na yéen sa yaay daan wax ay at ci ginnaaw nga naan xale nga léegi yaa ngi gën a xam ne léegi mu jot yaa ngi bëgg xam ne léegi mu jot kon nag yi ñu leen di wax yëpp bàyyi leen ko xel te xam ne ala kulli xaal lépp lu ñuy xaar lu am la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.